asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar net ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci le minutes de l'info ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes l'info les minutes de l'info ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yi wér te wóor ngeen ci ànd ak Ousan li ci gën a fës mooy xam ngeen ko li nga xamante ni moom mooy combat bu euh, Lac de ak euh, ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène 40 minutes lañ leen euh, jox c'est sinon 40 minutes la ñuy jël daal di respecté geste barrière yi combat boobu noonu amateur yu bari daal di mer bu futu ci ñoom ki nga xamante ni moom mooy Lac de ni moom dafa amee woon baaraam bu damm Eumeu seen te ni moom staffam moom moo ko téela woon boppam waaye ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux yéena yàbbi ci mbir mi analyse bi mu ci def euh, moom Gris Bordeaux moom nee na ñaari mbër yi indi ñu woon forme bu tax ñu waroon bëri bëri bu jaar yoon et que combat bi diggante bi ñu ko jàpp dafa jege waaye sax nag loolu du raison si ñaari mbër yi waaye nee na ki nga xamante ni moom mooy euh, la de Guiers na xoolaat boppam ndax la de Guiers amateur yi ñu ngi koy di mere saa su ne ndax saa su ne. moom dafay wax ba ñu yaakaar ni dafay bëre te du bëre et que moom si boppam moom moo waxoon ni comme revanche am la moom mooy bëre bëre bi te moom mooy xeex-xeex bi waaye euh, furaas daal di xëddeem loolu yëpp gisuñu ci dara Gris Bordeaux ba léegi moom mooy wax moom nee na ki nga xamante ne moom ma Lac de bu ñu ko ko joxee dina ko corriger te dina ko bëree la lool te dina fexe euh, bu jëlee avance am dina bëre ndax dina xeex ak moom dina bëree par force loolu dañ koy bàyyi ci loxo euh, promoteur yi Gaston également maire ba futu ni grand combat amu fa woon ni jën kayre ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Anta loolu moom moo nekkoon euh, grand euh, combat bu ñu dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy commission nationale de concertation sur le croissant lunaire mooy kuréel bi nga xamante ni moom mooy faral di caytu wàllu weer bi ñoom xamoon nañu dañoo mën ay jàppante seen biir ku ci nekk bëggoon ni yaay jiite mbir moomu ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy Mourchid Iyane Thiam génne àdduna weer yële passé imam El Hadj Omar Diène euh, moom bi nga xamante ni bokkoon na ci ñu doon xëccoo loolu ni moom sax moom moo yelloo li nga xamante ni moom mooy njiit gi nga xamante ni moom mooy ministre de l'intérieur ci bëccëgu tey da leen woo fi nga xamante ni moom mooy bureau ngir fas yéene waxtaan ak ñoom ba sax bu ko jëree ñu teg benn commission euh, provisoire waaye imam euh, El Hadj Omar Diène dafa bañoon wuy ji ministre de l'intérieur ginnaaw gi la daal di ko nangu dina leen toppal loolu ba xam loolu fat lay euh, mujj les handicapés diplômés ñi nga xamante ni ay way laago lañ jàng ba yeey seen kayit ñoom tey dañu euh, dañu bëgg a def mars euh, si ngoonu tay gi dañu bëgg a jóge fi nga xamante ni moom mooy RTS wutali fi nga xamante ni moom mooy place de l'indépendance et que ñoom ci ñaxtu boobu ñuy ñaxtu mooy li leen metti mooy dañu jàng ba yooyu seen i këyit te dañ leen war jër ci li nga xamante ni moom mooy fonction publique bi maanaam ñu liggéey comme seen i moroom ñi nga xamante ni ay valide lañ alors bu ñu fa jugee dañuy dem ci nga xamante ne moom mooy suñu mbokk mool yi ndax xam ngeen ni ay bés yi la ñu génn ñett si ñoom génnoon nañu euh, àddina ñett si ñoom génnoon nañu àddina ginnaaw bi ñu euh, tëmbee ci euh, waaxu waaxu maanaam géej gi ñoom ci ñett ñooñu génnoon àddina ñu leen di jooy noppeeguñu ba léegi ñett encore dem nañ Euh, waaye macha allah li ñu ci doon njort amu ci mooy génn àdduna amu ci ñett si ñoom la ñu demoon tëmb si géej gi ba ñu demee daal di réer ni mbër ni merteng marine nationale di leen wër ba daal di leen gis le 5 avril bii passé la leen gis euh, bi 4 heures du matin jotee la ñu gis euh, ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy ay mool tëmbee woon fi nga xamante ni moom mooy ndakaaru waaye nag fekk nañ leen fu sore sore si biir géej gi waaye fii ñu toll nii ñu ngi leen di consulter di xool seen wér-gu-yaram waaye ñoom ñett ñëpp kenn génnu si ci bu ñu fa jugee dañuy dem dëkk bu ñu naan Malem Hodar nekk fële ca diwaanu Kaffrine benn ñetti ndaw yoo xamante ni ay ay ay rëbbkat lañ maanaam ñoo xamante ne dañuy wër ay ay ñuy rëbb euh, ci noonu lañ koy waxee ci olof rëbb euh, ñuy rëbb alors ñoom bi ñuy rëbbee ba pare di di wëlbatiku jàpp lu baree bare ci ci animaux daal di kontaan bi ñu kontaanee ñoom ñetti ndaw yooyu yegg seen sareet commencé di bég di kontaan di fo di ree ci kaw sareet bi baara jaw kenn si ñoom la ginnaaw bi mu yoree benn fusil maanaam benn pistolet boo xamante ni ay bal réel ñoo si nekkoon moom baara jaw teg bouton si bouton teg loxoom ah si bouton détente bi ginnaaw gi daal di euh, bës daal di génn àddina bi mu bësee bouton boobu la pistolet bi daal di dal si put bi mu daal di génn àddina sur le coup ñaar ñi tiit jànnaxe daal di woowaa dëkk ba jamono ji ñu toll yéen mi ngi si morgue hôpital bi nga xamante ni moom mooy hôpital bu hôpital régional bu euh, Kaffrine bu ñu fa jugee dañu koy daanele ak li nga xamante ni moom mooy archevêque monseigneur Benjamin Ndiaye moom mi nga xamante ni moom moo jiite njàngu bi euh, bu ndakaaru moom euh, ginnaaw 4 avril yamook li nga xamante ni moom mooy seen feetu Pâques déclaration bi nga xamante ni daf koy faral di def sa année ren ñaax na ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi rawatina mbootu chrétien ni leen nañu wéy di def lu baax ndax loolu rek moom mën na génne Sénégal euh, ci jafe-jafeem loolu rek moom mën a muccal Sénégal ci jafe-jafeem ñaan na tamit jàmm sax ci ñaan tamit euh, jàmm jooju yàlla na sax fii ci Sénégal wéy leen di abonné seen site d'information bi di Dakarnet dara du la rëcc ci réew